def te yàlla rek tax mën nga koo def te kenn du ko yëg ndax xam nga payooru suñ borom moo ëpp doole payooru nit te nit bu fekkee ne dem nga ba li ngay def ci teraanga euh, xaw a méngoog ngisal sëriñ Tuubaa xam na ne yàlla dootu la ci fay ya nit ñi nga xam ne gërëm nañ la loolu rek nga ciy am alors que ñu joxe ko kenn bañ ñoo gërëm te waccu ñoo yàlla moo ñu gënal fuuf ndax dañoo bëgg sax at ñuy yokk ñun lii ñuy def nii defuñu ko gratuitement dañ ciy liggéeyal suñu borom ndax yàlla loo ko jox mu wecc la lu ko ëpp moo tax lépp loo xam ne dañ koy def dañ koy def ci sutura suñu borom bugguñ ci buzz bugguñ ci promo bugguñ ci ngërëm bugguñ ci dara waaw suñ xel rek lañ àndal di jouer mooy dañuy dugal dañuy dugal di xool lan la lan la ko suñu borom di ful déwén waaw moo tax soxlawuñu ci kenn ku ñu ci tëral lu dul ay ñaan daal lañ ci soxla te ñaan yi yàlla nañ ko bokk mbooloo mi jullit ak bépp jaam ci barki Seydina Mohamed barki Serigne Saliou mi ñu yaakaar mi ngi noonu ah ñu delloo si waat suñu xel ci àddina ah lépp mu maase àddina amul benn solo Ah, di jéggalante man moom surtout man guddi euh, weeru Seydouna Mouhamed bi maa ngi ciy profité bala maa bala maa dagg direct bi di leen ci baalu àq encore parce que àq dafa sew ndax ki nga xam ne dalaa xool rek te bëggu la kooku xëy na yaa ngi def lu koy déranger ba tax nga amel ko ci àq moo tax man Amina Poté maa ngi jéggalu ñëpp di baalu ñëpp àq ah di leen jéggal nag di leen baal di ñaan nag ngeen jéggal ma man parce que àddina gis ngeen ni léegi kenn toogatu fi nit ñi dañuy wax ak yéen léegi génn lu ndaw jële ko fi ñun nag yàlla buñ bokk ci ñooñu yàlla nañu fi yàlla bàyyi ñu buñu cent ans ci barke Seydina Mouhamed ah maa ngi gis nit ñi di bind seen numéro numéro yi nekk fii duma ko mës a jëlal da ngeen di abonné ci man ngeen dem ci sama message ngeen bind ma fa euh, message ah man tamit ma abonné retour ci yéen ngeen bind ma message foofu incha allah euh, numéro yi dinañ tànn mënuñu may ñëpp di dinañ xool ñi nga xam ne seen wërsëg mi ngi ci ñu ñu ñu jël ci suñu yéene jox leen euh, barkelu ci seen guddi ci guddi Seyduna Muhammad ndax nabi moom lu waaye def ci moom yàlla la koy fay waaw lu waay def moom rek yàllaa la koy fay ay te kon dem leen ngeen euh, ngeen ci sama compte ci côté Saliou bi su ma paree émission maa ngi waaj a démarrer léegi émission bi émission bi tamit euh, ñun li ñuy def mooy taxaw fii maye loxo cinquante mille cinquante mille ci Facebook live bi loolu moo ko mayee bu dinañ maye ay loxo cinquante mille ci Facebook live bi paree ci Facebook live bi nag mu dem ci sama message euh, TikTok ma lire numéro yi fa nekk ma jël ci quelques numéros man tamit ma barkelu ci li ma am ci sama doole xam na damay ñëw dagg live bi ngeen xoj ma ci live bi bi ñu teralante foofu incha allah maa la ko fàllu maa la gën a bëgg ci sama xol yal na leen yàlla sàmm yéen ñu ñëpp defal leen xéewal ci barke Seydina Muhammad yàlla waññi ñu ndax ñu ñi ay ndaw lañ kenn matu yàlla nañu yàlla waññi yàlla def ñu ñu ay ñu jullit def ñu ay nit ñu baax def nañu ay taalibe sëriñ Touba ba pare tamit wàññi suñu njaboot def leen ñuy ay jullit ba pare def leen ay taalibe rawatina mu def leen ay murit sadiq ci barki Seydina ci nekk fa nga jokk rek yal la fa yàlla jox lu kawe sa njort ci barki sëriñ Salim ngëm dafa am solo ku ne am nga droit gëm bant bi ci sa buntu kër waaye boo ko gëmee ba noppi nag danga cay yem te maanu boo ngaralee da ngay mujj nekk naafiq ndax liy indi ŋarale souvent mooy ragal ku la mere te àddina boo dëgguwul da ngay seytaane te bu fekkee ne euh, dëgguwoo rek naafiq ngay doon mooy buggoo kenn mer il faut que am ñoo xam ne dañu lay xalab am ñu lay yëkkati kon nag ku ne sañ boo génnee sa kër bant bi nga dajeel nga gëm ko ne moom laay jaam mais boo ko gëmee nag bant bi def ci yow dara mais bu fekkee bu fekkee da nga ànd ak moom te gëmoo ko ànd ak moom ci ngisal da ngay am problème hmm? kon ku ci nekk li nga gëm jaamu ko te ngeen yem ci te bañ a dinga kenn ndax ñun ñëpp a yem ca yàlla hmm? ñëpp a yem ca yàlla ñu bàyyi xel rawatina sama mbokk murid yi tamit maa ngi leen di gën a ñaax di leen gën a dolli ndax bëgg Sëriñ Bamba warna tax nga sopp sa jikko bëgg sëriñ bamba warna tax nga baax bëgg sëriñ bamba warna tax nga yi no waw na ñew kii kan la sama chéri koko mais yes give me her please where is my baby no no no amul dara amul dara where is my baby abis ah yaay nay ga xaaral ma ñëw xool mais namu naa la ana sama bébé bi abi mi si jàmm mais indi ko kër ga ma gis la gis ah? jël ko jël ko waaw ok ok ah? sister love you ciao yéen a ngi may dégg dama doon nuyu sama benn sister est-ce yéen a ngi may dégg ba pare mën ngeen ma dégg te du ngeen d'accord ak man mais dama bëgg ngeen dégg ma ba pare ngeen d'accord ak man ah ñun ñëpp ku ci nekk xam nañ ni li ci suñu xol mooy bu ñu amoon pouvoir li ñuy njëkk a def ci suñu pouvoir mooy fexe réew mi neex naat suñ paree ci loolu ba pare jubbanti suñuy njaboot ñu tegu ci yoonu diine suñ paree ci loolu parce que yow mën nga bon mais doo bëgg sa doom bon ku sañoon sa doom ji nga jur moo lay gën mën nga yéene nit lu ne lu bon te sa doom toujours da nga koy yéene lu gën léegi nag nañ natt doomu aadama yi ku ci nekk li ngay xool ba di ko yéene lu bon nga tourné ko ci sa doom ne lii ma yéene kii man li tax yéenewuma ko sama bopp yéene ma ko sama doom léegi loo bëggul mu dal sa doom rek bul wéet mukk ba yéene ko nit nit ki bu la ëpp pouvoir bu la dàq sañse bu mu la dàq bu la ëppale jamaa bu la ëppale dara ba tax nga bañ ko bum la ëppalee dara ba tax nga jéppi ko bum la ëppalee dara ba tax nga koy sosal ndax tey sa doom bu génnee takk jamaa bu ko nit ñi xoolee yaa ngi leeral nit ñi ne leen pourtant sama doom ji lii mu takk daay man la pourtant ñun xam nañ ne daay man la takk waaye yaa ngi ñu koy gën a wax pour nit ñi fonk sa doom yaa ngi yëkkati sa doom di wàcce doomi jàmbur yaa ngi yëkkati sa bopp di wàcce ay nit yaa ngi yëkkati sa sa sa sa jëkkër walla sa jabar di wàcce ay kenn du rabee sa nit ñu bàyyi ci xel xam naa ne waxtaan bi neex na leen waaye nag temps amul maa ngi nii di waaj dugg ci direct bi euh, pour euh, commencer émission bi xam ne ci la ñuy maye paasu màggal yi problème yi ci àddina du ma ne ñun jigéen ñi ñoo ko fi indi hmm? waaye bari nañ ci jigéen ñi encore buñ nangu kenn di ñu déstabiliser parce que jigéen ñi ñu ci bari soxoruñ frustration la ñu am frustration nag li koy indi mooy am lu sa moroom amul ah nobanteeku la trahir wala sa nit jëndee la uh, sa copine frustration dafa bari ñu moytandiku di buñ nangu kenn duñu frustré hmm? nañ leen bëggante suñu biir ni ñu bëggee suñu doom yi suñu biir xol ndax doom lu mu bon bon bon bon layam du ko sànni bàyyi sax mën na sànni doom bàyyi mën na abandone doom te papa du bañ doom tuuti na Euh, yooyu yëpp nag bi ñu ko xamee ne ñun yàlla moo ñu ko cërale lépp yàlla lu baax lu ne yàlla ñun la ko njëkk jox waaye tamit lépp lu fragile lépp lu sensible lépp lu yaraax yàlla ñun la ko jox mais tamit ñu bañ ñu ñu dëgër ñu jéem a dëgër ndax dëgër dafa am solo hmm? toujours boo weetee li sa xel parce que ñaari xel moo am ci lay diggal lu bon ak ki lay diggal lu baax toujours bi développé yow bala ngay réagir rek xool ko wéetal nga xool ko ngi ne man lii développé wu ci man tey xaaral ma appliqué ko nga ne waaye bu ma ko appliqué nu muy demee natt ko ci sa bopp neel ma appliqué ko ci sama doom nga ne yàlla tere parce que bugguma sama doom am frustration yàlla tere bugguma ko appliqué sama doom mu dee yàlla tere bugguma ko appliqué sama doom mu am gàcce kon bu ko appliqué ci keneen parce que souvent nit dina bon te tayu ko bon feebar la ndax bon nee naa leen toujours ñëpp a ko am jalousie la ndax da ngay baax ñëpp naan danga baax suba nga yeewu gis loo doon rêvé nit am ko soit nga yéene ko ko wala nga bañ ko ko yéene moo tax loolu jalousie la ah ngeen moytu di ko développé di ko di ko yar ci yéen ndax soxor nit a koy yar ci boppam boo ko xasee ba yar ci sa bopp ba mu dominé la dootoo mën a changé ti maay waaw bu fekkee ne nag boo nekkee ci nit ñi liñ am doo leen ko yéene nangul di wéet nangul di wéet ah ngeen bàyyi xel ngeen moytu foo parce que àddina am na ñoo xamante ne visage bi ñu leen di won ak visage bi nga xam ne moo nekk réel ci ñoom du dëgg nit ñi dañu faux ñenn ci nit ñi dañu faux dañu fals muy góor di jigéen nit ñi def ci am ñoo xam ne dañu fals dañu lay reetaan ba ñu weex tàll barki naa Muhammad fekk na lañu lay waajal bu yàlla gaawul sa liggéeyu ndey jàppale la boo ci tàbbee kenn dootul wax say wax hmm? ngeen moytandiku bàyyi xel ngeen euh, prudent ci seen bopp surtout ci seen njaboot xale yi nga xam ne majeur gul bàyyi leen seen doom yi xel ngeen di waxtaan ak seen doom yi surtout jigéen ñi hmm? ngeen di waxtaan ak seen doom yi di leen wàññi di leen diggal lu baax ngeen fexe am complicité ak seeni doom ndax ëllëg lu la dal doom rek a lay jege hmm? bàyyi leen xel. yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen paasu gàmmu xoj leen ma ci euh, Facebook live bi parce que maa ngi commencé nii sama direct euh, dans cinq minutes laay commencé direct bi kon damay dagg live fu bi parce que sama liggéey mooy sama te sama priorité ci àddina sama njaboot la ba pare après yéen ñi ma bëgg hmm? man awma lu ma ëppal ñi ma bëgg parce que Serigne dëgg la ci man dëgg la ci man man awma lu ma ëppal ñi ma bëgg ndax olof danaan kenn ku la bëgg jar naa daw ba dee ndax fukk yu la bañ ah, kon nag nañ leen baalonte àq ci weeru Seyduna Muhammad bi ñu bëggante te yàlla rek tax ah, ñun dara jàpp ñu lu dul baax ñun Sénégal dara jàpp ñu ci monde bi sénégalais moo dàq ñun ñoo taar gën a taaru xam nga monde bi man euh, fi ma ci demul bariwul fu ma ci demul bariwul dem naa fu baree baree bari ah ma ci gërëmaat waa fi jox ma Médias boo gisee fu ma taxawee ci télé bi di leen gërëm di leen gërëm di leen gërëm defaluñ ma lu ma jom waaye macha allah fii la yàlla jaarale sama wërsëg yal na leen yàlla defal jàmm léegi maa ngi dagg dem leen Facebook live maa ngi nii di dagg affaire bi ah dégg ngeen générique bi ay ca dem leen Facebook live ñu joxe gàmm yi loxo cinquante mille